waaw wax fa dëgg yàlla bon dund bi dèjà dafa cher cher goo xamante ne boo ci boo ci tegee yokk courant yaakaar naa ne suñu waajur rek noo ci gaañu yaakaar naa ni li mu def bon su fekkee ne état moom moo ko def xaw ma nag ci yan ci yan condition lañ ko defee mais su fekkee ne état da cee dugal loxoom def na loo xamante ne arrangé wul population benn yoon ndax euh, bon sunu yaay sonn nañ sunu papa yi sonn nañ sunu nijaay yi sonn nañ dëkk bi metti na metti goo xamante ne kenn xamul fu mu toll ñun ñu dee ouvrier rek dafa metti si ñun parce que dañuy fay luyaas fay fay fay fay fay euh, maanaam joxe li ñuy dund. askan wi sonn nañu askan wi jaaxle nañu askan wi gën a xamutat fu ñu jëm Sénégal lu ñu xamutat ban Sénégal ci àddina ndax euh, lépp dafa war a neex te Sénégal lépp naqare courant bi moom doom boo ma ci laajee mag la ko. kenn waxuma dara dund dafa tàkkatu sax ba nuy fayu nit ñi kamaj kamaj ji bari na nu fayu nit ñi fay gu seer kayit gu dikk ngay bëgg a dee boo ne bii woyof na tey ci weer bi boo ëllëgee bii seer na ci weer bi kon dem fu nu jëm. man yóbbal ngay jox président. xanaa nag mu wàññi lépp wàññi dund bi wàññi courant bi wàññi ndox mi wàññi li ñuy la jëfale ko ci Sénégal lépp loolu loolu laa yóbbante président. waaye nag sant yàlla même luñ ko got bu gënee cher it yàlla dinañ yombal luñ koy fayee mais métti na nag trop ku ko wax ko waxul na. lan moo siy saafara. ah waaw ñu jéem a xool trouver solution rek waxtaan ci suñu biir gouvernement bi ñu xool lu ñuy def rek ba ñu am ci saafara waaw. lan nga leen di yóbbal. ah li ma leen di yóbbal mooy ñu dimbali rek suñu njaboot gi bu ñu wàccee dañuy jàng te xam nga courant bu amul dara du mën a marché waaw loolu daal waaw metti na nag metti na metti na trop te boo demee gën sa ay gën gën sa yàpp ñëw courant amul tamit lépp yàqu nga pecc sa xaas tamit neexul metti na trop ku ko wax ku ko waxul tamit metti na. ñuy dund kon bu ci tegee courant bi yaakaar naa ne nekk na loo xam ne c'est anormal. ban saafara nga ci bëggoon. waaw saafara bi moom mooy su fekkee ni bon ñun dèjà am nañ pétrole kon yaakaar naa ne solution war naa mën a am bu fekkee ne nag am na yeneen possibilité yoo xamante ne war nañ ko mën a def di di di di di yokk courant boo xamante ne feeñul dara si ñun suñu dund bi ñuy dund yaakaar naa amul benn sens nañu fexe ba nga xamante ne courant bi na accessible ci ñëpp parce que am na dëkk yoo xam ne amuñu courant dèjà boo ko yokkee yaakaar naa ni am na ñoo xamante ne dootuñ doo doo maanaam ci ñu doon dundee la ñuy la ñuy continuer dundee ba léegi yokkum courant bi daal. du loo xamante ne ci ci moment yii nii lañ ko doon xaar wàññi wàññi woon nañ wàññi woon nañ loyaas bi yokkaat nañ ko yaakaar naa ni courant bu ñëwee dellu si sunu parents yi rek ñu ñoo ci gaañu. ba yokkute bu bu bu boo xam ne nag dañ ko dañ ko préparé quoi tu sais facture yi man maa ngi dëkk Ouest Foire je paye moitié liñ ma indil mooy mois bi passé je crois que date limite bi c'était kañ. le mois de novembre passé double lañ ma indil Ni dëkk sama kër yokkuñu au contraire man génn dans suma cœur, un mois et quelque revenir ñu doubler facture bi man nag bon dama don ko xamné j'ai des principes dama dem ba ci ñom, je l'ai expliqué man len man Lima jaaxal moy dama genn suma cœur un mois foog ne suma courant dafa war a wàññeeku ma ñew fekk courant bi doublé duñ la amuñu explication buñ la jox yow ya intelligent rek à ma grande surprise nous quelques vingtaines de jours ma dégg ne yokk le courant Je courant parce que euh, euh, dans on sax dafa donc si 10 euh, vraiment il faut donc à la limite on avons wax le Sénégal lambda en tant que responsable borom kër nan nga arrangement parce que toll nit

Nous sommes également du courant donc la patrie c'est quoi la patrie c'est la République c'est le Sénégalais lambda euh, qui de qui a qui a les les moyens donc le président moi, mu patrie merci. Moi, je suis c'est du n'importe quoi n'importe quoi ça fait très mal mais il sache que nous, ñoom xam nañ ne suñu la tamit nit fay def sacrifice li mu waroon a lekk lay jël def ko ci courant bi parce que mëno dund sans courant donc voilà quoi c'est dit n'importe quoi ça fait très mal au cœur. njiitum rew bi liñ koy wax moy li mu waxoon daf ko changer daf ci dara daf ci dara man duma politicien nak musuma politique mais deug su ñëwé dañ koy wax quoi tu vois wàññi nga bam neex la nga jek jek rek yokkat yok bi lan la consommateur yi liñ doon consommer ñu koy consommer ba légui problème bi la bugg a laaj borom nguur gi lan la lan mo fi beñ lan mo fi yaqku ak lu fi ki ba yok affaire bi il faut mu expliquer ñu may xey rek dañuy yok ño waroon mëna fay fay fayetuñu vraiment ça fait mal au cœur ak benen wa Sénélec li ñuy yokk ñoom ñoo ko waroon a endossé parce que ñom duñu fay courant il paye pas de courant tay buñu yoron 50 climatiseur ñun ñoo koy fay donc yok bi ñom dañ ko gérer quoi ñu bàyyi ñun. suñu muñul wàññil ñu bàyyi ko fi